lii moom dafa nekk lu doy waar beneen euh, jéego la ci euh, état injustice beneen jéego la ci euh, yàq suñu démocratie loo xam ni mag ñi liggéey nañ ko Sénégal nekkoon vitrine boo xam ni macha allah wante tey jii plus ñuy avancé ñu gis ne ñoo ngi perdre loolu yëpp état boo xam ni suy wax waxu justice moom ni mu ko gisee simplement en terme d' emprisonnement liberté yi mu yàq ko mu jalgati ko loolu dafa doy waar parce que tey jii justice ak droit dafa am yeneen aspect yoo xam ni tellement important parfois même beaucoup plus important mooy droit économique ci wàllu liggéey ci wàllu habitat ci wàllu santé wante amul benn encadrement foofu moom toppatoo ñu dara du ñu def urgence pour indi fii projet de loi boo xam ni day dimbali askan bi mais su dee dafa ciblé ay événement ay nit sax lay wax euh, nga gis lu ñuy def ni mobiliser tout un arsenal mobiliser alal réew mi euh, doomu réew mi pour ñëw assemblée national encore voté ti beneen loi boo xam ni wax dëgg yàlla amul benn valeur ajoutée bu muy indil Sénégal soo xoolee boo xool euh, am na koo xam ni mi ngi